ki gën ci ñun moo gën ci ñëpp jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën ci ñun baax na jërëjëf moo gën ci ñëpp tabarakallah tabarakallah tabarakallah waa nga ñu may ñu tuuti ñu may ñu tuuti baax tabarakallah waaye nañ déglu tuuti nañ déglu nañ déglu nañ déglu ne leen nañ déglu te taxaw nañ déglu te taxaw foofu nañ déglu te taxaw nañ déglu te taxaw foofu dégg naa leen gis naa leen taxaw leen foofu bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil xadim innama al ahmalu binniyaat dañu koy taqsiir ndax jamono la ki yeeyoo cant yépp bu ñu ko ko joxee ba noppi mu jox ko ki nga xam ni moo ko njëkk sant mooy rabbu samawaati wal ard mooy njëkk a sant ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul oh. bu nu dajalee cant yi jox ko ko ba noppi moo xam da koy jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu baaxoo def moo xam da ko koy jox mubaasharatan rabbu samawaati wal ard ruusantee ku tedd ki cant yëpp a ngi ci biir amatan waaye sant itam ki nga xam ni mooy jëwriñ ñi borom xasra bi imaam Cheikh Mbaye ak njabootu alxaaji jiili yëpp di sant itam honorable Nderi ak soxnaamam ak doomam di sama doom di sama soxna di njaayam Nderi di nuyu gouverneur beeg préfet ñëpp xamal leen ni rek li tax mu demee nii doon wàññi mbooloo mi bëgg ñii dem Touba ca kër ga am ci ñenn ñu ñëw fii rek ziyaara màggal ak man ci yoor yoor bi du yàgg nag ndax dañu koy taqsiir taqsiir mooy looy gàttal moo tax ñu koy yemale ci fanweeri minute ak ñett xam ngeen ne yi bu état jàllee communication bi nu ci jaarale ñun di xadd fakk kab laa waxe ku tedd ki la te ma wax bu naa fi fi ma daa indi saafi moo tax ndem maag yéen ñoo bokk ñoo bokk max masque boo xam ne dafa invisible muy xafisani mbaa mbaa muy najjaani mbaa muy allamani man bil hudaa mbaa muy naajaani ba léegi masque yi naa wàcc ci sikkim ku mu neex xad fakka kabola bi li tax mu ciy figuré ñaari kilifa am a cheikh al xalifa ca di cheikh Mouhamadul Mokhtar ak cheikh bële di Araïs Macky Sall kon en tant que day mel ni état tax république tax chef d'état bee tax waaye xadd fakka kabla bi ci ne dàng nag boobu moom kilifa gaa tax ca penk kilifa spirituel la am kilifa temporel rajo bi nag bi ma koy njëkk dégg defe naa ne man fu may njëkk a dégg rajo li may njëkk dégg mooy jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jàngkati xasaay bi xir nañ lool ñoom maam góor waaye ba léegi xamuñu moom waaw booy wut lu ma neex nag dafa am foo may dàkk ndax xasaay bi moom gënoo maa neex baat ma koo maîtriser yéen xasaay bi man neexu maa jàngal xasaay jërëjëf Serigne Touba man ñëpp a ci yam bu dee xasaayit dañuy xool ku am njàngam neex ak ku am njàngam neexul ku maîtriser temps ak espace ak ku ko maîtriser wul waaye jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñëpp ci ah kon ngeen xam ne moo gën di dara loo xam ne ñëpp ko mën ñëpp ci yam moo gën di dara rajo daal ku naan ko kun ci sama wet dama koy dégg bala ngaa wax dara njëkk maa waxal loolu fekkee da ngaa bëgg a satisfaire mu leer nañ neexumaa jàngal xasaay waaye jërëjëfe Serigne Touba noo ko waxe dafa dafa ndar képp lépp jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne ku ko man wax ku ko man di waxe day aw yoon lu ne ma nga caa jëm doon def loolu naan ngay gis Serigne Touba caa nga gàtt am na fenn waaw kon moo gën dara jërëjëf jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñun moo gën si ñëpp jërëjëf jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñun moo gën si ñëpp jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñun waaw di sant nag wax dëgg yàlla sama rakk di sama jabar di Mahmoudan Sall waaw xale yépp ñi nga may wax disponibilité am ak ak mbaaxam man leen nag lu naturel la ci moom ndax moom fu mu nekk njabootu alaaji Serigne Sall ñëpp nga fa fu mu nekk njabootu alaaji Jiili Mbay ñëpp nga fa xam ngeen dafa tàng bu ngeen gisee ma tënk ko ci fanweeri minute ak ñett di dund soxna Mariama Bousso Jaariyatullah di faratay julli ak sunnay julli di dundum yonent yàlla Iisaa bu ngeen gisee loolu mooy temps bi ni mu demee ak ni ma ko waxee woon daanaka euh, bu nu neexee sax yemale ko ci Mbàkke bu neexee yemale ko ci vingt deux minutes vingt deux mooy Mbàkke ndax damay bëgg am na nu ngeen daan màggale ci seeni woy ak seeni xasaayit loolu bu ko defee dama leen ci bàyyi ànd ak euh, Mahmoudan ak honorable Nguer yi dellu ci biir bu ko defee ñi nga xamante ni bii mënuñoo ñàkk a bañ a ak ñoom ah te ñu di ay kilifa ñu ma leen di indil ndànk ndànk loolu la ñu xam ngeen ni presse bi xam ngeen ni ñëpp Tuubaa yi nekk waaw soxna si moom dañ koy ne man maa ngi dugg ci biir man nga daanaka man ngeen ko dugal ci biir bu leen ko taxawal.